Euh, li ngeen fekk ñu di ko liggéey dafa am ay jiw pombiteer xeeti jiw ay variétés yu nga xam ne dañ ko expérimenté fii ci tool bi variété bii variété bu bees la mooy bi ñuy sol ni mu ngi tudd Esponta la bi ci sa ginnaaw te ñu koy waaja a récolter boobu cinq cent cinq cent douze la boobu liggéey nañ ci ak indien yi pendant ñetti at bii nag ren lañ ko expérimenté ñu tas ko ci béykat yi yóbbu nañ ci loo ëpp cent hectares ci biir ci béykat yi comme ñun commencé nañu récolte fii ah ngeen ñëw fekk ñu ñuy sol ah dama yaakaar ne lii lu nit mën a teg bët la te lii mooy développer réew mi bu fekkee Sénégal dañu bëgg a yaakaar rek yem ci importation pomme de terre pour nit ñi di dunde loolu dafa war a arrêter mais li tax mu arrêté du rek indien ñooy béy mais ñun population yi ñun dañu war a yokk suñuy jumtukaay pour ñu ànd ak indien yi mën a béy loo xam ne dina dundal Sénégal mais waratu Sénégal waratuñu nangu ñu dëkk di ñu importer ay pomme de terre ak soble parce que suuf si baax na ndox mi baax na semence yi baax na. li ñu bëgg rek mooy ñu am chambre froide bu nga xam ne day def quinze mille tonnes fii xam ne lépp lu ñor si ñaay bi. au lieu que ñu muy yaaxu ci àll bi ñu ñëw denc ko fi bu buñ demee ba nga xam ne production yaa ngi jeex après ñu génn ko bu nawetee ñu jaayaat ko ci marché bi